rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu sëñ bi Mbàkke ma lay sant di la ziar di ziar lépp këpp kuy setu sëñ Touba mbay mbaa setaatam di ziar mu xadam yi di ziar sëriñ si di ziar kër diine yëpp di nuyoo ambassadeurs yi yëpp sa ci turu président de la république ak turu premier ministre xam naa ne waxtu wi presque jot na wax fi lu yàgg amatul euh, jaratu ko euh, wàcc daanu moo ci gën a gaaw euh, man ndaw rek la boroom kàddu bi ak borom jëf ji moo ma yëkkati muy président de la république mu ne ma ñëw seet ndax li mu santaanoon li mu waxoon gouvernement bi yëpp aw na yoon ndax def nañ lu ñu waroon a def kom ñi mu yónni woon waxtu woow it man maa leen jiite woon ma ñëw rek sëriñ bi tegaat tànk bi fi mu ne woon nee la rek bu dara manqué du président bu fekkee am na lu ñëwul du moom bu fekkee am na lu desit du moom ñun la ñun yi ñu yónni mais lenn it dinaa la ñaan nga bay ma ma wax ko ndaxte lu tubaab yi di naan œil neuf koo xam ne kii loon di ñëw ci béréb ñëw fa am lu mu jis xëy na am na nu ma koy waxee nit ñi gisee ko nu ñaaw mais Touba affaire bi fii la na ma nit ñi baal nag ndaxte ñett nit na ko seet lépp loo xam ne yëkkati nañ ko xale yi gën faa bare loolu sax na te du dee li ma gis tey sur quatre ou cinq kilomètres gisuma kenn ku ëpp vingt maa ngi ànd ak Zakaria Diaw ma ne ko Zakaria mu ne ma woy ma ne ko Zakaria seetlul bu baax xale yi fi nekk ñoo ëpp mag ñi c'est-à-dire que ça va être une continuité loolu benn la te sëñ bi loolu jàngaluma ko kenn lépp lu yàgg dëgg la cent quinze ans du cent quinze bi bu mu demee ak tey cent quinze ans li mu waxoon defal leen ma ko nit ñi ñooñu seen bàyyi judduwuloon sax tey ñoo ci gën a taxaw ñoo ci gën a dëgër te kenn mënu leen delloo gannaaw ñetteel bi balaa may wax kàddu président ñetteel bi am na lu ma wax Zakaria sànq dañ doon daw sunu ëtt mbëkk ma ne ko lii gisoon naa ko mu ne maa ma bañ a wax ndaxte quatre heures du matin danga ma ne demal du dee defuñu trois ñu wooñu ñu ne ñu yaa rien de jóg na xale bi dara jotu te yooyu yaa ma ne demal du dee loolu yëpp boo ko boolee maam lu ma fi wax day xaw a jafe day xaw a jafe ci man lool lenn rek laa lay wax sëñ bi waa sëñ bi dañu def accident mais waaw suma oto mais ci gént gi dafa ñëw mu ne ma demal du dee mu jox ma mu ne ma lii sarxe ma génn suma kër génne sarax lu ñuy daw yëpp suma xelaa ngi ci biñ ñëwee oto bi bu mu bu ñii ne ma nañ dem mais comme ne war na ma du dee wóoroon na ma du dee ñu départ ñu ne ñu jóg na yóbbu nañ ko hôpital jóg na ma ne loolu tax wax fi dafay xaw a jafe ci man parce que dama jaxasoo fu ma ne mais lenn wóor na ma sëñ bi président li ma wax lu leer la te tey it mun naa ne honnêtement maintenant j'ai compris le chef de l'État buñ ko xasee mu ne du tax suma yaram buñ ko waxee lu bon mu ne baale naa tey laa comprendre lu tax ndaxte sëñ Touré wax na ko ci discours am li sëñ Amat Bamba waxoon c'est très clair mu ne j'ai pardonné à tous mes ennemis